salaamaaleykum suñu mbokk internet yu sans limite ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci récap di jour di xibaaru bëccëg gi dañu koy ubbi ak lu doy waar am fële nga xamante ni moom mooy Grand Yoff quartier bu ñu naan Arafat benn waay lañu euh, fekk wala sax lañu fekk ci néegu benn ndaw mu daal di ñàkk bakkanam ginnaaw ba ñu fa nekkee di def naka sudul noonu ndax soxna si nag ma nga tudd li nga xamante ni mooy bisu waaja ma nga tudd junior waa ji nag dafa am soxna fële nga xamante ni mooy France bi mu ñëwee Sénégal am fi coro coro bi nag comme ni ma leen ko waxee mi ngi tudd Bijou Bijou mi nga xamante ni dafa amoon ah, borom kër ba daal di divorcé ñoom ñaar dañuy bëggante ndekete ñoom ñaar ba ñu nekkee ci néeg ba di def ah, la leen saf waa ji dafa jekk-jekk daal di piqué crise cardiaque mbir ma daal di nekk lu jaaxal waa quartier bi ba ñu dawee wooyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy police bu Grand Yoff police bu Grand Yoff daal di téye soxna si ba ñu téye soxna si jël li médecin indi médecin ba gis ni la soxna si wax moom la médecin bi ni euh, waa ji dafa piqué crise cardiaque maanaam crise cardiaque moom moo ko jàpp te ñoom ñaar ba ñuy nekkee di def loo xamante ni mënuma kaa wax ci koor gi noonu lañu ko bettee waaye nag ki nga xamante ni moom mooy soxna si jamono ji ñuy wax ak yéen di wuyoo ci turu Bijou ma nga ci li nga xamante ni moom mooy garde à waaye enquêteurs yi nag ña ngay wax ak moom te nag mu doon wax ni moom moo ko dal loolu moom moo am maanaam waa ji dafa piqué crise cardiaque moo ko daal di dal ci ginnaaw gu ba ñu nekkee di def leen saf ñoom ñaar waaye nag ah, ki nga xamante ni moom mooy soxna waa ji Bijou te mu nekk fële ca France ba ñu ko ko waxee daanaka moom sax dafa xëm di lu doy waar waaye nag jamono jii muy wax ak yéen soxna si muy biisu ma nga sa loxoy police bu ñu fa jógee dañuy dem ci ki nga xamante ni moom mooy Serigne Ibrahima Diagne ci Serigne Ndakaaru moom mën nañ ko woowee Serigne Ndakaaru ndax loolu lay revendiquer moom ma ma taax Diop ku ci nekk yaa ngi naan Serigne Ndakaaru moom Cheikh Ibrahima Diagne Serigne Ibrahima Diagne yéen a yàbbi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ànd sàmm jikko yi yàq na leen nu mel ni xemee ndax moom d'accordul benn yoon waa ànd sàmm jikko yi jël benn xeex daal di koy porté ni xeex boobu rek la ñuy xeex muy criminaliser li nga xamante ni mooy borom ñaari tur yi ndax nee na leneen mi ngi fi lesbienne yaa ngi fi yeneen i mbir ñi ngi fi waaye nag ah, dafa mel ne dafa déggul xeexu ànd ànd sàmm jikko yi ndax ànd sàmm jikko yi bu ñu liiree ci ñenn ñi ci commentaire yi ginnaaw ba vidéo ba duggee mooy ànd sàmm jikko yi xeexu ñu rek mbir góor jigéen dañuy xeex yeneen i mbir yi xamante ni dafay yàq jikko ci réew mi waaye nag moom ne na lan moo tax ñu jaale jël seen xeex bi yëpp fixé ko daanaka gëmul seen xeex gëmul ànd bi nga xamante ni ñoom dañu koy woote ni ànd sàmm jikko yi moo leen tax a jóg ci réew mi waaye nag ñi ngi xaarandi tontu ànd sàmm jikko yi ndax dina ci am bu ñu fa jógee dañuy dem si nga xamante ni ah, moom mooy ah, Françoise Hélène Gaye ak Maty Trois nga xamante ni daanaka mën nañ lañ woowee ay ñaari soxna yuy jàppal tànk ki nga xamante ni moom mooy Adji Sarr ndax ki nga xamante ni ah, moom mooy Maty saa yu mbir mi takkarnaasi dafay génn def ay live tout le temps di dal si kaw Ousmane Sonko ba sax du laale benn yoon ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi Ousmane Sonko yi rawatina ñi nekk ci internet bi Françoise Hélène Gaye yàq na lu mel ni xeme comme ni mu ko doon faral di defee ndax nee na ki nga xamante ni mooy MC Niass MC Niass du sëriñ du dara ndax MC Niass dafa weer ki nga xamante ni mooy taalibeem te ki nga xamante ni mooy Adji Sarr jamono bi mu doon wax ak moom dafa nekkoon ci moment de détresse maanaam dafa amoon ay jafe-jafe ci xel meeg yooyu nekkul benn yoon looloo tax nag MC Niass daal di profité ci situation boobu noonu euh, di ko jéem a enquête di ko jéem a enregistré ndax nee na rafetul benn yoon ngay enregistré ki nga xamante ni moom mooy sa taalibe bi jaaxle ñëw di wax ak yow waaye nag ndax loolu rek euh, mooy lii dëgg waaye nag di lu ñuy xibaar bu ñu toppandi ndax. audio bu moom fuité na ba daam bu daaj ci yàbbi ci suñu euh, site d'information bii di sans limite wax na ci moom si nga xamante ni mooy Mamour Diallo dañu ko war a arrêté daal di koy déglu en attendant ndax dil ba kalaate na bu yàgg moom lii yàgg na ko wax moom daam mbooj ni lii ab complot la ndax dañuy leem leem yi nañu bàyyi li ñu nekkee di def bu ñu fa jugee dañuy dem ci Ahmed Khalifa Niass moom mi nga xamante ni euh, saa su ne bu weeru koor bu jotee dañu koy taaj ci plateau sénégalaise yi télévision sénégalaise yi muy wax lu ko neex ci l'islam di yëy di yàbbi ci loo xamante ni daanaka ñu bare bari nga xamante ni ñoo jàng diine bi du ci faral di ànd ak ñoom Ahmed Khalifa Niass waxaan na ba wax ci mbiri euh, ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall ndax nee na ba mu ko da doon may xaalis da ko doon may sax ay wëlisu xaalis te ba mu koy may xaalis ñoom ñi ñëpp kenn daanul sax nangu di jege kër président Macky Sall moom rek moo ci amoon fitu di waxtaan ak moom di ko jege bal sax nag daal di yëkkati lu toll di valu valise wala walisu xaalis la ko doon faral di may te lam ko doon may président Macky Sall ba nii may wax ak yéen delloogu ko lu toll nii la doon la mu ko doon may. bu ñu foo jigéen dañuy dem ci nga xamante ni mooy Khadim Ndiaye xam ngeen ni Reug ak Sa Thiès combat ba taxaw na Gaston Mbengue waxoon nañ leen ni mi ngi koy dox. taxaw na ba ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi njort ni 2023 daanaka saison bii bii nga xamante ni bu koor gi jeexee day continuer ba sa topp lay am ndax Xaadim Njaay nee na ki nga xamante ni moom mooy Sa na muy bëree na muy faral di bëree bés bu ko bëree ak ki nga xamante ni moom mooy rëg-rëg prix prix dipp la ñuy am maanaam xef ak xippi làmb jeex ndax dina ko jël dina ko daan jël bu rëy ndax Sa moom mi nga xamante ni mooy Xaadim Njaay da koo maîtriser lool te nee na ki nga xamante ni moom mooy Sa Thiès keroog ba mu jëlee li nga xamante ni mooy ndëndëm daw naan dafay dëkk dafay dëkku ki nga xamante ni moom mooy Bombardier la xam ne dina bëreeg Reug Reug ndax gëmul lam doon def da doon semblant Reug Reug la bëggoon wane ni ko pare naa ngir combat bi waaye nag ñoom ñaar ñëpp di ay ndaw di combat bu nara neex combat bi nag kañ lay am wax naa leen ni deux mille vingt-trois